poser question bu am solo. Mhm. boo xam euh, sénégalais yu de daf leen def problème oui amnistie. Euh, am par rapport à yi fi xew yëpp. Ah, mm, oui. bon les amnistie dafa compliqué. parce que pour dellu si de dafa compliqué mais dans la xel rek ne ni dee régime bi lañ défendre. toujours mais fatalité ki ñu dóoroon bal bi ñoo na. ki la combat continue mu naan fexe le ba projet bi réussir fexe le ba protéger Ousmane Sonko parce que man xam naa ni damay dee mais fexe le ba défendre projet Il y a des dizaines de gosses yoo xam ne ci noonu la donc sacrifice boobu dañ ko consentir pour le projet pastif il y a plus de 2500 prisonniers politiques Yo xamni yang kay ngi koy fàttaliku comme ñom papa Ablaye Touré torturé nañ leen même boy bi sant Fall bi nek actuellement ñu woo ko prison kooku torturé nañ ko ba mu am ben handicap à vie. ak Azoura Fall. ñu bëri mënuma lim ñep. Mm-hmm. donc tey jii Macky Sall balaa muy dem fexe na ba ben projet de loi. Fam ko jotee. mais lolu na xelu nit ñep dal ni responsabilité yi danañ ko situer surtout fan yi dégg ngeen ñu yëkkati dossier wu 45 milliards d'armement yi mhm. déggu leen ko fan yi mhm. pourquoi ñu yëkkati ko parce que ba tey amaguñ ci woon leeral mais bëri na lu ñu am si amoon na lu leer léegi lu leer nag laa indil Kéwoulo parce que am na lu ma jox régie pour ñu wane ko parce que 45 milliards d'armement yi euh, nañ ma wane euh, euh, liste bi liste la boxe ni quantité rek la am amul prix unitaire mom ngeen di ni par exemple fusil d'assaut 1500 fusil d'assaut waxu ñu ñaata 1500 pistolet automatique waxu ñu ñaata 500000 munitions euh 556 waxu ñu ñaata lañ ko 500 500000 munitions 9 mm waxu ñu ñaata lañ ko té ci bir, amna AK47 tamit mu ngi euh, ligne 19 euh, 19 euh, AK47 ñaata la euh, AK47 ñaata. 1500 1500. AK47 mooy mooy Kalachnikov. nit ki moom le quoi. Kalachnikov d'accord arme donc mais ci biir commande bi aussi am na ci ay pick-up. li mooy bul déjà. non bi waaw waaw am na ci aussi ay pick-up te ñëpp yow yaa ngi doon junj léegi pick-up yi déparé. siège APR léegi nañu xool montant général bi ñu def ci. 45 milliards 300 millions. Le montant total général 45 milliards 300 millions. De francs CFA. En détail. Mais je y a une formation des agents pour la mise en service. Wow, des drones. Il y a des détails. Mais ce qui est intéressé, c'est ce qui est intéressé, moi, qui c'est une fausse facture. Facture qui pour un prix unitaire, ben le montant avec moi, ben le chiffre qui est 45 milliards 300 millions. Ah il faut hein léegi ñan ñoko signé dañ ñëw ci dernière page bi moon leen signature yi ñëw leen. indi leen signature yi. ah nañ ñun programme wuñ ko won machallah non non dernière page dernière page. dernière page. yaa ngi ci souf donc da ngeen di clairement signature. mi ngi Daouda Diallo ak Abdou Karim Sarr. le fournisseur na na touti tuuti signature Ablaye Daouda Diallo mo nek ci souf ak bu Abdou Karim Sall. waaw ministre de mel ni de. waaw léegi xam nga lii leer na c'est une fausse léegi génnuma sa laaj bi. Mhm. xam nga ñu nekk fii. Mhm. yàlla daf leen may xarañ. comme amnistie bi problème la. waaw gis nga lii bu ñu ko yëkkatee. waaw lii bu ñu ko yëkkatee Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdou Karim Sall dinañu wax ana arme yooyu parce que présidence. ba colonel Adama Gueye commandé ay munitions parce que loolu aussi daf ma sore mënu ma ko jox régime mu fi attestation de destination finale bi mu signé mu ngi sama téléphone damay bañ a perte temps di ko seet mais sénégalais yi xam nañu la parce que ci jamonoy Macky Sall ak jamono colonel Adama Gueye laa ko que wax dafa ne munitions yi destination finale c'est la présidence de la république hmm. les armes yii. Ablaye Daouda Diallo ak Abdou Karim Sall nañuy wax destination bi fan parce que arme mais kan on commander armes dans une république c'est le ministère de l'environnement déedéet mais Abdou Karim Sall c'est pas le ministre de la défense hmm. c'est pas le ministre de l'intérieur c'est lui qui a signé et le ministre des finances Ablaye Daouda Diallo dans un état normal Dawo. tey jii lii bu ñu ko tegee ci table bi ñii xam nañ li def de dama bëgg sénégalais yi wóolu ñi fi nekk dañoo ñu ngi nek di changer di changer gis nga dossier bi buñ ko ko waté xam nga li am bokul ci c'est pas politique. Mm-hmm. amnistie bi dañu ni bép délit politique de 2021, mille 2024, amnistie ba nañ ko. ok mais li, du politique parce que commandant, ce c'est pas politique. Mm-hmm. attestation de destination finale munitions yi am présidence c'est pas politique kan est nek présidence légui du jomay mo fa nek waaw wa légui nañ ko won munitions yi nga xamni présidence ak lan moo tax présidence commande munition léegi pick-up yooyu anuñu am na pick-up yu ñuy identifier légui dañuy reprendre une enquête légui bu féké ni enquête bi dafa wane ni pick-up nervi yi ñoo doon yëg arme yooyu nervi yi ñoo utiliser légui lool day backdoor xam nga backdoor moy buntu gannaaw mhm. pour duggaat ci procédure bi ndomb la pour duggaat non buntu gannaaw pour duggaat ci procédure parce que amnistie bi tëj na mais da ngay wut beneen buntu boo ci duggee man gëm na ni justice sera rendue à tous les martyrs et à toutes les victimes parce que li ma ci tek ci dossier bi ni sax dafa mm-hmm. ñëw ni ci sa question bi rek. waaw mais. bokku ci won mais bokku ci woon. mais mais nguur gi fi nekk danañu tek mbir yi ci yoon parce que dañu am ay éléments matériels. gaay xolal dañ leena japp ba paré la tañuy jot nguur gi lañ leen japp ñun. ci ay preuves la tañuy jot nguur gi lañ leen téy l'air qu'on quand nous ñëpp seen xel justice sera rendue à tous les martyrs et à toutes les victimes. ben image euh, euh, je te reviens. allez-y da ci am image boo xamante dama ko plus de 20 fois. de gis ngeen signature de la gare ak pour te dire que image bi daf xam fausse facture la xam facture c'est une fausse facture mais comment le ministre des finances peut apposer ça peut approuver dañuy approuver approbation tout. approbation comment le monde approuver une fausse facture approbation du ministre des finances. de toute façon responsable hein? c'est d'un ko il est fait le document est fait en cinq en cinq exemplaires originaux. Euh, euh, euh, date le 3 décembre. dañ il y dafa am ay ampliation yu ñuy def. Mhm. xam nga mais bi copie la mais amna ay originaux bi copie la mais l'I yomb na leeral. te lii le 3 lii xoolal laajul sax enquête bu sore yow lii bu ñu la ko jox joxee mais nga réglé ko. mais mais Claude, dama gis datu signature bi ñu def le 3 décembre 2021. waaw c'est presque 2022. fin 2021 waaw. alors que li ñu amnistié ci février lañ ko commencé. 2021 2021 ci février lañ commencé. non même bu nekkoon ci biir. ci 2023 sax. d' dañu ni sont amnistiés les faits politiques. politiques et liés aux manifestations ok surtout. Li du politique c'est ak manifestation même bu 2023 2023, sax même si manifestations, même manifestation amnistie kon li, ko xam fu mu parce que nous sommes ngi Abdou Sall anou. man da ci euh, euh, vidéo Je plus de 20 fois pour te dire que daf ma naqari mhm. man Je ne sax xam nga mooy oto nervi bi yem Medina. ñoo bokkoon classe te booy bi tarxiis. ñoo bokkoon classe oto bi jaar ci kawam. Mhm. continuer continuer. Mhm. ay ponkal yor ay yeb. tiim ko kaa boobu tellement daf man naqari j'ai pleuré ce jour-là. dafa tarxiis. dafa tarxiis si ndox bi. vidéo boobu dama ko seetaan ba sama femme ne ma dimbali ma nga supprimer ko tellement daf man naqari kaaw Medina nañ identifié wu pique boobu ñan ñoo ca nekkoon.

après dem seen yoon quoi. wallaay am na sax kuy commenté ak man mi ñoo bokk classe parce que seen amatut xaware la ñu jaar. ñoo bokkoon classe mooy xale bi ngay wax noonu. ça m'a fait mal le cas de ce gosse ma heurté woon.